waqar faaraqarroa ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew kooku mooy xamatu xeet wi mooy soppe ba alaaji mu nangu ngeen julli di salmal ci kaw rasulullahi a caay tabet ak ñoñam ak sahaba ya mu ne ko laka ñeen na la wujoodo ak xam te déet dara da jagleel loola waaye it ñeel na la ak des sax na sa gi nga daa ji not nga daa ji betleeku ca xam ga mboolem ma di yow yaa ko dajale ñeel na la ak xam ak tawhid goo xam ne yaa nan la ak daraja loola not na sa mbindeef ñu xam nan la ñeel na la ak xam ñeel na la ak sell kenn bokkaale wutal yow suñ la ko wutalee la moo bokkaale ci sa kibriyaaw gi kon wa kon wa kibriyaaw ka han kuni saatika sere gi dàqal na la ko ajib duhaaya yow da mu yàlla na yàlla nga nangu sama ñaan nangul ñaan ci man ci haduna nangul sama ñaan ci alaxira nangul ñaan ci man ci sama bakkan nangul ñaan ci sama ruuxu ndax yow yaa daa tedd te mbir moom not na sa tedd ga bépp tedd yow aji tedd ji yaa di aji tedd xëy na sa tedd ga xamut fu mu tàmbalee yaa di aji tedd sax na sa tedd ga te du jeex mukk yow de teddal nga sa bopp yow yéene mi xakoon bi nga daa ji wéet Hakal ma jaadaat. dëgg dëgg tedd yaa ko teddal sa bopp. ma ibu. soppe bi teral na la. muy kuñ bindi. nga def ko muy fondation mooy sell teraa nga teral na la ko mu daa ji woogu daa de farlu ci far moom aji farlu la ca dox ba te du wooru mukk ngir sa tera xaqu majdika sa teraanga ji tax na yonente bi dooru wa mumjidan moo daa ji teral la ka ñeel la bi tawhidin moom lu mu daay teralee mu ne ko faraay wéetal ci tawhid la mujtahidan moo farlu ca wéetal la ci sa jëmm ji nim nekkee kenn mu wax ko ndax benn bés Quraysh si ñëw na ci moom ne ko siflanaa rabbaka wax ñu sa borom kan yàlla ne ko qul huwa allahu ahad allahu samad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 salli yàlla yàlla nga julli te salmal alay ci kaw rasulullahi julli gu cay abadan boo xam ne lappet la ak ñooñu rasulullahi ak sahaba ya majadaka rasulu gannaaw teral nañ la axyaara ñetti tànneef nga xamal leen safal sa teraanga ga majadaka roow roowu Lamin Jibril teral na malaakal muqarrabiin yi teral nañ la ñoom ñëpp teral nañ la sell tedd teral nañ la ko majadaka alqutbu qutbu yi ñi nga xam ne ñoo xelif jamono teddal nañ la topp na ca qutbu ba jamaahato mooy ñu topp ca moom ñëpp ñay boromi texe teew na mu ne yàlla yàlla nga may ma tedd ak diina diina ay aji xamat suñu te mooy rasulullahi ki nga xam ne moo tabax teraanga yàlla nga may ma man xawa ndaw nga may ma tedd min isaari mursidina xandak magis aji jubal ñu kooku moo aji làkk teraanga salli wa sallim mu ne mu Cheikh Samba lu julli ci Rasulaay bëri na. loolu fu mu ko tuddee julli ci moom. xale yi. loolu li muy bëgg gi bëgg Rasulaay. xale yi. mu ne yàlla nga julli te sarmadan. ndax def na inna wa malaikatu yusalluna ala nabi. ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu. sa yow nee ko yàlla li ñu digal maa ngi lay ñaan nga def ko yow ci salli wa sallim sarmadan julli goo xam ne dana caayu abadan julli goo xam ne dana dappetu wal aali ak ñooñu rasulullahi ak sahabaam ya wa yal nga may ma yow yàlla majda anwaarin teraangaay leer wa mahrifatin teranga maarifati billah ab teranga bagi sesuapnya bi wa yal nga may ma mën majda asrarin ab terangay jàmm ab terangay jege yal nga may ma majda quran terangay sare ak bila nihayati ci loo xam yàlla nga may mën a war ndaw gën ci warsëg gën ci koom nga may ma wér nga may ma sécurité yàlla nga may ma gën ci ñaari kër yi ci lu ma may ko jëmm ji nga may ko roowu gi yàlla nga may ma gën ci doom nga donn loo leen te dag waay yàlla wéy sama ñaan xan ak ñaan laaj ñaan gi ma laay ñaan ak laaj nga dëggal ko ci tera ci melow sa tedd gi kama mu ne yàlla wéetal nga sa bopp bala kenn wéetalut ya rahmaanu yow yaramee koon bi yaa siqati yow ki ma dërloo xamnal xalaayiqi booba binde goo nga wéetal sa bopp nga daa beddeeku rabbi yow suma borom bil haqi ci dëgg ak teraanga wal majdi nga tedd ak nguur nga daal di meloo ci sibaatu jalaal yëpp loo xam naa amul kem ak tedd ak sell yow aji weetu nga daal waral muy lu ñu sakkoo waral ca taar ba boo xam naa mun nawle ak cant ak sant xol ak làmmeñ alaaji Manaw mu ne dàq nga ñaata kam yow dàq nga kam mu tasel fi saati kam mun fi saati dàq nga kam mu fi sifaati ولا كم منفزل في صفاتي ولا كم متزل في الافعالي لكن كم يلمي كم يجرم يا ربي يا سما برم يا كم لن تجرم سكن كي ويت كي لكن كم نفست امرك يا ويل سم برم دوغل كي ci sos boromam ñàkk gi te mooy rasulullah kooku mooy feeñ waaye sa melo yi de njël benal ka njëkk a nekk yow aji jiitu ji de sos ko it nag loolu mooy feeñ waaye sa leer gi yow aji feeñ ji mu ne sos nga ko muraaji laab soppe la xamal nga ko bedde ku sa jëmm ji nga yaatal ko mu daa ji nga gënal ko ci mboolem mbindeef wan nga ko xaamidan mu daa ji sant yàlla ca cosaan nga xamal ko ke kéemaani sa mbir mi wéetal na la soppe bi te kumpa ak ci mbooloo ci jëmm ci roow ji jëmm ci roow ga wax na ne sajjada sawaadi wa xayaali yonent bi wéetal na yàlla ci roow wéetal na ko ci jëmm mu ne woyu na rasulullahi yonent ya woyu nañ ko roow ya nañ ko ñëpp laa wax waxtu wa yàllaay jàpp kóllëre te mooy alastu bi rabbikum xaaloo balee sama mu ne yónni nga rasulullahi mu daa boole daa ji wéetalit mu daa ji wóolu jëm ci mbindeef yëpp أدان ما نفع أوه أدان ما نفع تقول بس hal balaxtu ko balaxtu yaa rasulullah mu ne kon fal saayidu alal xaayi bi yan julli ñi haj nañ ba ndax jotal naa ñu ne ko jotal nga yaa rasulallah mu ne kon ku fi jotalal ku fi newul ndax yonent képp ku yàlla yónni jàpp na ci yow kóllëre ala jama ndaw ne joxe na kóllëre ga mu daa taxaw ca joxe ga taxaw ci njub kóllëre gi la yàlla jox ko moo tax suuf leer Lena sumu ya sadu an la ilaha illallah Sallim wa sallim Wa sadu an nasidna Muhammad Abdu wa Liman qalbum neku ini. rey nit Sallim wa sallim Do def chip Dakka yin yung fey nordu Di la ilaha illallah Lola adha nisala togo go adha lamana ta Mua waral souf lair Nekon souf kon salli wa sallim seex ci kaw rasulullahi sarmadan cay abadan faalika ci sa kaw may gi anta rajawun man xama ndaw ci ci la sukkandeku ci la sukkandeku anta yaakaar gi yow yàlla wa man jawun yaa weeru waay yaa ñooy warsagal sell njëriñ ya yal nga nangu tuub ñeel jaam ba daa ji tooñ ka daa ji tiit yow aji nangu tuub yal nga ñoddi doxub aji dox si hufin kay borom ak tefel wa si raqabin tay borom ak kamim teef ilal aqaayakin ki nga xam jëm na ci aqaaq yi tama xamoon ndaw ñoddil doxam waxta yal nga ubbi qasaa'ina anwaarin ndambi leer yal nga ma ko ubbil ndaw wa ak ndambi mari fay sa pili so bile ubbil ko ndambi moori yal nga tab bi mafati asaqin ci caabik manga sini ar warsak wa marhamatin ak caabi manga si la yërmane liraqibin ñeel aji bëgg wërsëg saaka kadaa ji soppu xasabakal xalqu mu ne ko mbindee fi jublu ne ndax yaa di samadu muxtaajina ñoom fañ bëri soxla de xaatibatan yéen ñëpp soxla yaa moom nguur mustaqfirina woy tawlu lañ jamian mboole seen مسنا موهبة نير مي يا مسير الجود هي يا أجي بريجي تبجي waaye moom de du niroog mbindee bi jublu na la soppe bi moom fa lay de ak mbooloom yonentam ma ñaay tànnee fi mu ne sang nga muraaji set wécc xarit la

yaa rahmaan yow yërëme ha kon bii madaaji gis afdala xalqika ki gën gi mbinde fi xataahu saayida mu ne bu mayem ci gis ko naa ko seede yaa rahmaanu yow yërëme ha kon bi tawaxto fenk teefu rasulullahi maa bisaraat waa ma ma jële ci ay de aw jatta xalqaka kon wala xini mubsiran سبعة سفتنا أذن خليقتي أفضل خليقتي واتنا رب يا رم يا ميتا روحيتو واتنا رب يا رحمن روحيتو روحيتو خير الكرامات لولو ما يمبك يا مسيخ واتنا ربي من يال nga may ma mëna wandaw ya rahman yow yere ma akon bi ruhiyatu magi rasulullah looloo gën ci karaama bu ma naaw ci jaawo ji li gën ci karaama daal mooy gis rasulullahi may ma ko man kon nag seen heure bi dafa mel ni guddi na guddi gi guddi na waaw li ñu waxtaanee it bari na kenn ci dégg topp nekk waaw taburu kan la ngir seen ak mbégte ndax li nekk ci xol yi xam nañ ko mooy bëgg Seydi El Hadji Ndaw kooku nag doom ak taalibe ñoo ci yem ndeg mandu téefam nawir lohoo wildatan rabbi wa sumratahu hmm? nawir lohoo wildatan rabbi wa sumratahu nawir yal nga leeral lo ñeel ki la di di la ñaan willatan ay doom waaye nawir yal nga leeral loo ñeel ki lay ñaan sumratoo mbooloo am na sama maam ñaari doom la am daf noonu wala du maxnawi ak wala du hissi yu ñuy xam ci man doom ji ma jur mu sant ndaw ak doom ji ma jir ci ruuxu ñu mun a yi ñaar ñooy xam ci moom ndax moom jege na yenente bi juboo na ak moom li la ñu di wax waxtu wane ñu ngi tudd yenente bi walaqini mubsiran tal hatta azil asil xaliqati kooku su ma mom moom na ma bëggal te koku moy moy bashir moom la yalla tuddee bashir fala budde mu bëggal ci ñamon daw sa ñamon daw nak ñun la xam ñun ñokoy bëggal lan lañ koy moy nak ci njub ati jamaatina fi dini qurwatina kullal manaafi nee na nañ nek ci dina yalla jox ñu bépp njëriñ kese loolu rek la joxal suma mbolo mi kulal mën a fee waaye nañ nekk ci diina xulwatina dañ góorgóorlu ci diina kon toppatoo waxtu julli juróom toppatoo santaane yàlla ay farataam toppatoo sunna su rasulullahi toppatoo bokk gi bañ koo dagg bañ koo sànni toppatoo bokku taalibe gi bokku taalibe gi moo gën a dëgër bokk askan wi gis nga askan wi ñu bokk bu àllaaxira day dem Omar askanu mbayeen amu fa askanu ndaween amu fa askanu tureen amu fa askanu siiseen amu fa muttaqoona moo fa am yonent bi ne yàlla ne na bu yombal xiyaamee dana wax jullit ñi ne leen ansitoo déglu leen ba ma leen mun su xalaxtukum ba ma leen bindee ba tey maa ngi leen di déglu tey nag déglu leen ma man yàlla teg naa sama teg ngeen teggi sama teg teg seen teg jël naa askan jox leen te mooy ma leen na inna akramakum indallahi atqaakum yéen ngeen ne déedéet diw man maa di diw diwa ma jur diwa ma jur diwa ma jur askan woowu nag teg leen ko tey sama askan mooy yëkkate ko ne an na aynal muttaquuna ana ñu ma ragal waxatinaa rabbi taqwaaka wa xaafiyatan ma a raafat yaa ra'uuf nee na yàlla yàlla nga may ñu ragal la loolu suñu ma daw ñaan kon nañ góorgóorlu xam ki ñu xam kan la xam ki ñu àndat xam lim do ci rasulullah yi ndax ñu mat ko taalibe suñ ko defut duñ ko mot taalibe bu nekkul ci diina ñun duñ mot suñu ma daw taalibe te du ko tere mat moom lim do ndax juboo naag yàlla juboo naag rasulullah liggéey na matal na te dara dootul yàqu wasa fi nii wax mi nii jàng nañ ko ci gannaaw wa ab ke xormata naa léegi léegi nga gis ku taxaw ne barke ala joba ndaw yàlla wooyu waxtu wu ne ngeen gis ko waxtu wu ne nit taxaw xasu ci maqaamaam mi yàlla fekk la nekk ci xat-xat dootoo xelaat lenn barke wala jongoon dama ngay wax yàlla fekk la alhamdulilah loolu ci seede yi la jërëjëf si mbay kon jërëjëf kon Cheikh Cheikh Omar nu ngeen di def waaw yaa ngi fi de ma ne fi de waqar ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew